bëgg naa ñu ñun suñu groupe bi yëpp Pastef Gambie ak sénégalais yi fi nekk ñu sant bu baax gërëm His Excellency euh, looy Ousainou Darboe parce que njiit la boo xamante ni ku bëgg Sénégal ku bëgg Afrique amul naqar bu ñuy am Sénégal wala bànneex te oowuñu mastawuñu bokkukaat ñun mais special thank nag to the mayor of Kanifing mooy euh, Bensouda parce que nit la ku baax nit ku am xol bu yaatu nit bu bëgg Sénégal di rakk Ousmane Sonko bëgg Sénégal bëgg Gambie jàpp ñu comme bëggul lu ñu metti bëggul dara lu ñu jaaxal support yooyu ma lay wax nag dama bëgg mu leer ne du du du supportu xaalis parce que ku xam Pastef xam ne Pastef xaalis àndu ci ñun duñu liggéey ak xaalis gëmuñu xaalis ñun suñu réew lañu gëm support bi lu tax mu mu dugg sañu xol mooy moral support parce lool moo gën a important ay daf dañu ñu xool teg ñu ay nawle bu ñu amee naqar ñu ñëw bu ñu amee bànneex ñu ñëw so ñaari lider yooyu mooy ñaari leader UDP ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen di sant aussi ñu ngi liggéey euh, Fatou Touré parce que yéen moo leen moo moo leen yéen waa yéen Gambian Talents ok dama insiste ci euh, gërëm Fatou Touré kër Fatou parce que journaliste bu xarañ la bu xam li muy def bu bëgg Gambia bu bëgg Sénégal ay king bi nga xamante ne ba ñu ba tey bàyyi benn yoon bu ñu dem mi fa mi ngi ñuy support ci lépp léegi nag ñu ngi si aussi Gambien si yëpp population parce que Sénégal ñëpp xam nañ ne benn la man léegi lu may wax Pastef euh, Afrique waxatuma rek Pastef Sénégal parce que li xew Sénégal stade Sénégal dañu bëgg mu jaar Gàmbi jaar Gàmbi dem West Africa yow ba nga xamante ne West Africa ñu dinañ nekk benn dëkk dinañ gëm sañu bopp am sañu souveraineté vraiment développé comme yeneen dëkk yi nga xamante ni dañuy rey xale dañuy jël gaal fa dem

parce que mais bettu ma nag parce que man xam naa Karim xam naa ko bëgg Sénégal la xam naa ko bëgg liggéey la te ku ku am xel la nu ñëw ñi ko xeex yàq ko depuis 2012 mu ñëw di leen jàppale tey du koo xamante ne mar naan da koy tax a naan fët loolu man mun naa ko seede parce que dama liggéey ak moom donc di ci kontaan trop di oo PDS Gàmbi yëpp ñu ñëw sañu gannaaw ñu ànd liggéey ndax ñu jël ndam incha allah suba bu neexee yàlla wasalaam maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp. jërëjëf soxna Yacine jaajëfal ko ñaanal ko jàmm ba tey ngeen ànd na